رب العالمين الحمد لله الذي قص هذه الأمة بفضائل الأعمال وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax képp ku ci sant di wax ni jotaay bi li ko waral mooy dalal ay gan ay gan yoo xam ne fa tabaarakallaahu ganu diine nañu ganu lislaam lañu waaye ay mbokk lañu mënees nañ leen a dalal ci kër gi ñoom it mënees nañoo dalal ñeneen ci kër gi waaw ndax ci kër gi lañu ñu bokk tabaarakallaahu jotaay bi li ko wund rek mooy cadre unitaire islamique nga xam ni tabaarakallaahu lii seen liggéey booy fexe ba lislaam ñoŋ jaarale ko ci këru diine yi mom and nañu ak seen président muy Serigne Cheikh Tidiane Sy mu ngi nii toog mooy président cadre unitaire bi bu ko tuddé tek ci ki nga xamné moy docteur Cheikh Gueye mom mi nga xamné moy vice président bi secrétaire waaw secrétaire général waaw bu ko défé délégation bi tamit bokku na ci Abdoul Aziz Mbacké mu majalis Touba bokk na ci it Ahmed Saloum Dieng euh, forum islamique pour la paix moom mu ngi nii topp yaakaar naa ni ràññee nañu ko ci kër gi bokk nañu tamit këru diine yi ñi leen représenté boo demee sëriñ Abdourahmane Kunta mu nga nële ak euh, sëriñ Kunta Mële ñoo représenté waa Njaasaan waaw représentant scientifique laa yeen cellule scientifique bu laayeen ñoom tamit tabarakallahu ñu ngi ci xadara bi ñu ngi ci teew jamaatu ibadur rahman tamit ñu ngi fi teew waaw ñu ngi seen représentant waaw mu ngoog représentant rassemblement islamique du Sénégal ñoom it ñu ngi fi teew ñu ngi leen dalal bu baax ñoom it ak comité chiite bi nga xam ñu ngi fii ci réew mi tabarakallahu te seen kilifa di Chérif Ali Aydar momit it tabaarakallaahu bokk nañu ci mbolom bi Serigne Chérif Mbaalo Chérif Mbaalo bu ko defé professeur Jim Ousmane Dramé ca jamal momit mu ngi fi teew tabaarakallaahu Fatou Sow sar mi nga xamni moy trésorier général bi aussi momit mu ngi fi tew mu gënalé ca gannaaw kon fa tabaarakallaahu sëñ Madick Seck mu ngi di waa Thiénaba mu ngoog sëñ Madick Seck mu ngi di euh tew nañu fi tabarak allah ñu ngi leen di dalal bu baakha baakha baax a waaw bu ko defey dal cadre bi ci bopam mom richesse bobu yep la dajale muy lépp lo xamni Sénégal amna ko ci richesse cadre bi mom la dajale bolo ngir jima liggey ngir ñongal tabarak allah li nga xamni moy diide fi ci l'islam ndax ku ne xamna ni diine moom fu ne lañ ko menacé waaw fu ne lañ ko duutee baaraam waaye dana jaaru it mm, ñu di ñi dëkkee réew mi fexe ba booloo fexe ba tabaarakallaahu ndax mbooloo moom bu xasee am euh, euh, néew na ku mën a pénétrer mbooloo def ci la nga ca war a def ci ay yàq tabaarakallaahu fekk mbooloo maa ngay booloo kon nag loolu rek moo moo mooy mooy liggéeyu cadre bi xam naa ni incha allahu bu président jëlee kàddu dana ci gën a yaatal waaye nag ñu ngi leen di dalal ci xadara bi muy xadara Cheikh El Hadj Ahmed Baro Ndiéguène nga xam ni benn la ci xadara Sénégal yi nga xam ni ñooy teewal diine góor gi mu ngi fi ñëw l'année 1885 fii moom bi muy ñëw fii ci dëkk bi moom kat kott rek donc kese moo fi ñëw tabaarakallahu ba tey koo digg Ndiéguène rek tabaarakallaahu mu ngi barkeelu ca ca ca ca hijraam boobu ca gàddaayam googu mu defee woon ca Kasaas ñëw fii ci Thiès ci ndigal yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ki leen dalal nag muy imaam alxaaji ahmad baro njigéen mi nga xam ni mooy rakk ci xalifa bi ndax xalifa bi moo leen waroon a dalal waaye mu nga Paris waaw mu nga Paris di saytu yaramam waaye nag imaam alxaaji ahmad baro njigéen mi mu ngi fi di rakkam mooy président des imams et de la région de Thiès mooy seen njiit mu ngi nii kon moo leen dalal Euh, feggoog rakkam Serigne Ousseynou Ndiéguène mi nga xam ne lépp luy wàllu organisation cordon lépp luy ñoŋal diine tabaarakallaahu ñu ngi ci xam naa ni bu Serigne Cheikh Tidiane si jëlee kàddu ba pare danañu jox Serigne Abdoulahi Dieye mu présenté lenn ci liggéey bi nga xam ni Green def nañ ko ci seen kanam ndax ku am ganit tabaarakallaahu faaw nga euh, xamal ko faaw nga euh, xamal ko tolluwaayu kër gi waaw soppi reerin lañ koy waxe comme nag tabaarakallaahu bu Serigne Cheikh Tidiane si jëlee incha allahu dinañu jox Cheikh Abdoulaye ci ay minutes yu gàtt mu tënkal leen liggéey bi bu ko defee kilifa yi ñoom doog a jël seeni kàddu tontu leen. kon nag loolu yaakaar naa ni mooy kàddu yi ñu nga xam ni waroon nañ koo introduire ñun seen buntu lañu fii waaw moo tax bu ngeen fi ñëwee day jaadu ñu sànni kàddu sànni kàddu xamal leen ni euh, présenté leen kilifa yi présenté leen kër gi ni muy doxee fa tabaarakallaahu kon nag bañ a guddal ñu ngi bàyyi wàcce kàddu gi foofu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين بيني اللي نيو دي لزيارة تي تورو كادر يونيتير دي الإسلام بيغا خمنتني كوريلي سيتو xam-xam ci këru diine yi ci Sénégal ak association nañ ci dolli serviteur ndax kàddu yi may yëkkati ñii fi toog jox ma ko buñ ko yëkkati woon seen bopp mooy gën a jubli kon ci seen mbaax lay waxe ci seen euh, joxe cër lay waxee fa tabarakallah ñu lay jox sa wàccuwaay di la ziyaara di la ndokkeel ah, di la wax nga jottali suñu ziyaara eh, sëriñ bi xalifa bi di ko ñaanal ca fa mu tëdd yàlla indiwaat ko ci jàmm mu continuer di jiite njaboot yi fa tabarakallah ba li mu namul ci ñoom yàlla na ko yàlla mottali si euh, di liggéey ci mbirum daara ànd ak suñu mbokk euh, Jibril Diop lay imam Jibril Diop lay moom mi nga xamante ni moo fi toogal comité scientifique bu Laayeen ci ndigalu Seydina Issa Laye ànd ak euh, mbokkam moom tamit ah Jal Diop waaw imam Jal Diop laay laay ñu ànd ak Jim Ousmane Dramé moom mooy nekk ca professeur la ca IFAN moom mu yore laboratoire islamologie ci IFAN waaye it tey moom ñaari tànk la fi la fi am ndax moo fi toogal it waa jaamal tey ànd ak El Hadj Kunta mu yore communication fële ca Ndiassane bokk ci comité scientifique ba moom tamit ñi ngi ànd ak. Euh, Ibra euh, professeur Kourouma. yàlla defal ñu ci jàmm ba li ñu namm ci diine ji Sénégal yàlla mottali ko ci wàllu rataxal këru diine yi ci wàllu ñoŋal xam-xam ci wàllu euh, lépp loo xamante ni daal lu lu baax lu fi mag ñi bàyyi woon mooy mu ñuy wax préservation patrimoine culturel boobu nga xamante ni mag ñi ñoo ko liggéey ah ñu mën ko gën a ñoŋal ba mu nekk njëriñu diine gi nekk njëriñu Sénégal nekk njëriñu islam. fa tabarakallah ah guddal nañu tuuti waaye dañu bëggoon rek euh, euh, matal jéem a matale ndax mënuñu ko sax waaye ñu jéem a matale rek lii nga xamante ne mooy lañ ñu dénk euh, suñu ay nawle ci seen mbaax dénk ñu ko ah ñu xam ñoom ñii ku ci nekk bu ko waxoolal boppam mooy gën a rafet nii ma nii ma waxee wa tabarakallah di leen nuyu di leen ziyaare di leen jox seen wàccu way di leen wax ngeen jottali ñu ziyaare ba ci xalifa bi di ñaan yàlla barke lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallah fayal ñu leen bi jaay nabil Moustapha alayhi salaatu wasalaam kàddu yi daal du bari livre baa ngi nii bëgg nañu mus tas àddina bi maam Ablaye Thiaw Laye ak kaneen ak kaneen yàlla nañ fi yàgg te wér sëñ Muniru Njegeen yàlla na ñibbisi ak jàmm l'islam yàlla na am ndam yëkkatiku kéefar yàlla na neen ba keroog illaa yawmi diin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ci seen yëkkati ay kàddu yu gàtt ci ndigalu imaam alxaaji ahmad baru njegéen ci ndigalam su fi sëriñ Mouhamadul Muniru nekkoon it ci ndigalam la ñuy yëkkatee kàddu mais hiérarchie dafa baax day defar kër yi moom mii di imaam As bu waxoon ne moom mooy waxit ñun nangu nañ ko te xam nañ ne ñun lu ñu nab na bi jéem la muy wax moo ëpp solo suñuy wax waaye na kër gi moo baaxoo nii ñi nga xam ne miin nañ suñu xadara bi xam nañ ne fii moom boo fi ñëwee ñii lay doxe bàyyi dañuy cëral doom yi mag ñi di cëral xale yi ndax loolu mooy tax xale yi bu ëllëgee ñu xam li mag ñu doon def lu mu doon ki doon yëkk ci kàddu yi nii lii mooy lii ñu kër gi lii mooy philosophie kër gi su ko defee kon Ablaye ñu ngi lay ñaanal yal yàlla barkeel Serigne Hassan professeur mi bind téere bi yéen ñii de ay ndaw nekk ci kër gi yëpp jàpp ngeen ci liggéey bi seen humilité ak seen baax moo tax fu ngeen di toll di ko lim ku nek Canada lu mat fukki at di jangal ci université te bi di dox fi ñom ñi la yal yalla yàlla len sen mouvement bi ñu koy wax green yal nako yalla barkel ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci barke sen maam Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu yaag mbolo mi nga andal yépp di rafetlu bu baax sen teewaay ci kër gi di féliciter itam Serigne suñu dom ji di Mouhamadul Mustafa. Kibayam bayam mom lañ dan wax muniru alquran alquran rek la massa saytu fi ci kër gi mu nek ndakaaru di jang di góorgóorlu ba kérok mu ñew ci sama kër nema pap Pape cadre unitaire islamique dañu wax ne dañuy bëgg jaar ci kër gi mané ko lolu moy ban entité ban mbolo la mu tudd ma professeur Guèye mi ma ne ko ah yow de li ñu xam ci yow képp koy Louga di ko indi ci kër gi nit ku baax lay war a doon ndax xamuñ ci moom jubadi bu yoroon millions yi itam tu jubul lum ñu woo man du duma ñëw man duma ñëw bu fi xalifa bi nekkoon dama xam ne kii jubul mu ñëw sëriñ bi ànd ak moom man du ma ñëw dinaa joxe sama nga mais na ngeen seere na kii ngeen am ci yéen ci ñi gën ndaw ci kër gi la waaye nag mën na bokk ak mag ñu ngi leen koy gën a dénk bu baax AIS bu xale bi Mbàkke bi ñu fiy ñëw suñu doom bu ñu wax Abdou Salaam du doomu Serigne Mouhamadul Moustapha moo leen indi ci kër gi ñun loolu bañuñ ko fu nit amee nit ku baaxam di ko indi ci kër maamam ay baayam dañu toog recevoir ko soññ naa ko ci suba ne ko yow mbaa wut nga ay liminaat xam naa ne taalibe la amul doole mais dañ koy jàngal ambassadeur états uni bi mu fi ñëwee altine bii paase man mii ko invité maa jënd liminaat joxe jënd ndox yónnee ci imam As ne ko yaay kilifa ak jotaay bi waaye man def naa lii dañ koy jàngal pour bu ëllëgee mu xam ne kuy def gan danga koy teral ma ne ko teel na lool pour joxe liminaat moom du baax waaye soo amee ndoxit ko mar naan ca ñoo xam ne yéene nga leen lu ëpp loolu kon sëñ Moustapha beneen yoon na nga bàyyi xel loolu yal na yàlla yombal ko di rafet lu bu baax ñëw bi fii dalal nañ fi gan gu nekk saal bi turandoo kii dafa daan wax ne suñu woowee téléphone danaan sëriñ Ousseynou ani suñu saal mitik bi moom noonu la tuddee woon saal bi fii kilifa gu nekk ñëw na fi ba ci mbay ñang bii nga xam ne nekkoon na ministre ci Abdoulaye Wade keroog bi mu ñëwee fekk na fi suñu wayjur alxaaji Mouhamad Njëgeen suñu doom bu ñu wax alxaaji Mouhamad Ousmane moo sanc léegi ci kër Issa yor fa daara ja suñu bay moom la wo keroog ne ko mbay mu ne ko wa mu ne ko kii sama doomu rakk la waaye xam na ne mën ngeen a jëflante yaak moom boole na la ak moom kër gi non la fonctionné ku fi am nit bo ñëwé dañ ko jàpp ngir yàlla ak yonent bi këru nitu yàlla la itam kër la go xamné kenn mënu ko taré kenn kër la gu ñëpp bok rawati na borom fikra bu baax borom xalaat bu baax borom yéene bu baax borom xam-xam bu baax te muniru Sëriñ muniru mi fi nekk dafay wax ni gis nga nit ñu ne mu ne buy la mu ne fekk tojul kenn du xam lu nekk ci biir nit nak ni muy toje moy mu wax su waxe rek diga kham, xam mo waral bu nit ñewé ñun du ñëk wax dañ koy dëglu mu wax ba paré bu ëndé jamm ñu ëndi jamm bu ëndé luddul dul andi ñun ñu ëndi jamm masla tagaliko ak mom mu dem ñu dé waye yi ñu fi dégg ñun japp nañ njabootu alhaji Ahmad Baru jigen jitu ci serigne muniru japp nañ ni mission bi ngeen di dox ñun ñoko wara dox ñun ngeen koy doxal kon tey ñu amoon fas wala ñu ami 4x4 wala ñu am ay bon essence dañu leen ko war a jox encourager leen ñaanal leen ndax yéen bennoo këru diine yi bennoo jullit yi leen ngeen loolu ngeen di woote te Saalum xam na xam na man man man lii bi def naa fa 12 an ci jamono Xaddaafi al waxdatul ifriqiya ku ma sa xam Xaddaafi xam na loolu moo ma sa nekk ci boppam ñun loolu la ñuy dund fii itam. bennoo ànd bàyyente xel dafante ay maslaxa te discours bi nga yëkkati léegi wóor nañu ne moo nekk ci ñun ñëpp ndax ñun dañuy faral di wax ne léegi jamono bi kenn moomatul kenn gis nga fi ñu toll nii su ma narul woon a ñëw jarul may sànni xeer naa toog sama kër rek joxe ngànt mais nag bu ñu ñëwee poussé ma ba ma lu tax ñëwoo dinaa ne ah lii moo ma ñëw ñun ñi léegi ñi nga xam ne dañoo xelu non lañuy ñuy fonctionner léegi entité yi bari na mais bi ngeen dajalo ak li nga fi lim ci jamaatul ibaadu rahman siyaa yi këru diine yi mbolo yi nga xamne li li li néew na muy am ci Sénégal fiñ ñu toll te consensus dafa bax jëlale dafa bax bàyyente xel dafa bax te loolu lu koy waral lan mooy tax loolu am consensus am bàyyente xel am lan moo koy waral yëgante ñun lu ñu bëgg-bëgg diine lu ñu bëgg-bëgg ànd soo defee sa yëf boole woo ñu waxooñu ñu waaye waaye bu ñu maandoo ñun nañ toog jàpp suñu jàmbur te xam ne kenn mënuñoo tere xibla gi du tey ñu julli du tey ñu dem suñu zaaw yëpp yi buñ jullee ba pare ñu war yi kenn du ñu ko mën a tere mais nii dafa baax da am ñeneen ci famille bi kii ngeen amoon muy ndaw ñu doyloo ko mais da ngeen am keneen ci ndigalu imam as ndax comité scientifique bi am fii ci kër gi at mu jot dañuy organiser ci waajtaayu mawlidu nabi symposium bu mag bu ñuy def ci chambre de commerce bi foofu la ñuy defee dédicace kii li ko waral auditorium bi sax mën nañ ko am mën nañ am beneen salle waaye dañu ne kii yilif chambre de commerce bi at mu jot bu ñuy def suñu symposium mu gàmmu gi duñu ñu laaj dara defal ñu ay facilité ñu nekkoon bu ñu am lu am valeur di ko jéggi moom ngir kóllëre mais ñàkkuñ feneen fu ñu ko def buñ bëggoon dañuy dem ndakaaru ca saal yu mag ya sax tëgg ko fa indi télévision yi coow coow coow mais nit day defar fi mu dëkk ñun Cees la ñu am bala ñoo wuti keneen itam bu ñuy waxtaan dañ ne nañ seet ku dëkk ci kër gi am xam-xam su manta nekk ñu ne nañ seet ku dëkk Thiès su manta nekk ñu doog a seeti keneen nag ku ñu invité boo ñëwee ñu jotal la ci sa cër ya noonu la ñuy fonctionner di ay nit nitu jàmm di nit ñu bàyyi xel ñëpp itam di nit góor góorgóorlu foo ñu fekk nag ñu ngi ci suñuy mbiru bopp ñii jàng nañ métier boole nag jàng daara ji ñii jàng nañ jàngi tubaab xeetu xam-xam boo bëgg ci usra bi mi ngi fi discours amul benn discours buñ fi jaaxal ndax suñu waajur yi suñu maam yi noonu la ñu nekke woon suñu maam alxaaji ahmad baru njegéen moo sanc fii moom la ñuy wax ne moo fi installé yu en 1885 bi mu ñëwee moom li mu njëkk a def dafa def ay tool fële ca fi ñuy wax kër Issa daal defar zawiya jàkka jumaa ji doomam moo ko defar ginnaawam muy sëñ aman jigéen ak ay rakkam mu dem ci tubaab bi mu defal ko titre foncier ni Touba nekk titre foncier gis nga ñun fii commissariat bi ba ci kanamu zawiya bi benn suuf la njëgeen la sant kuy mag ci ñun yaay dem ci kayit gi ñu daldi di nag répartir tâche jël chef de quartier bi joxe jël imaama gi joxe jël nangam joxe jël kuy dox lii nangam joxe bokk nag di dund suñ dund du liggéey di jàng alquran di góor góorlu di jàng di góorgóorlu ci diine di maslaha di rafetal ak suñuy dëkkandoo yu njëkk mooy njabootu ahlul kuntiyu ak waa kër maam alxaaji malik si loolu waral seen maam dañuy wax ne musul dem ndakaaru traversé Thiès te jaarul fii ci alxaaji ahmad baru njëgeen ak wa keur ma Omar yi Ndak su ko kon lolu moy ñun suñu credo suñu doxalin suñu gisin suñu bëgg-bëgg lool bëgg nañ lool ko xam ne daal dañuy bolé sey yef bon ci boolewul nak ñun dañuy mandu mo ñi gaay wax ni duñu sanni ay xeer duñu wax ay wax yu déplacé déedéet jombalé nañ lool suñu fo ñu fekkit li ñuy wax gouverneur bi su ay gamu gis nga yow so ñu joxé tiwo ñun ñu gàmmu soo ñu joxul daa ñu gàmmu ndax suñuy bàyyi ak suñuy maam dañ doon gàmmu bâche amul tuyau amul làmp amul mais jamono ko woote léegi moo tax ñuy ñëw ci yéen di sàkku gëm itam ne yéen lu ngeen ñu defal yàlla ko dogal ci yéen mais lu amul itam duñ leen ci mere loolu mooy suñu philosophie ñu ngi rafetlu bu baax kàddu yi fi jib di sant yàlla bu baax bañ a gën a guddal di ñaan ci yàlla mbolom yàlla na yàlla barkel xeyna ñi nga xamne ay gan lañu waye ñi ñu dëkkal ci ties xam nañ leen ñom xam nañ ñu bu baax waaw sëñ Cheikh ñun duñ yàqal kenn loolu yàlla dogal fi ci bu ñu dajee cër bo ñu gëna bëgg sax ñu jox lako dama dem ben kamil le 3 décembre barki dem fële ci ci ci Cité lan annuellement sama mbokku taalibe bu jigéen moo koy defal woy juróom bu nelaw bu yàgg imaamu dëkk ba saa yu ñëwee ma ne ko suwaay mu ne waa ma ne ko jàngal jàng xarnu bi waxtaanal defal lépp mu ne ma yow daal sëñ Ousseynou saa fi ñëwee rek noonu ngay def ma ne ko lu ñu xëccoo man li ma jàng ci alxuraan dund war naa doyal alxuraan xanaa suwaay mu ne waa ma ne ko yow yow jàngal lépp jàngal lépp mu ne ma nag moom bi mu demee keer papa as la fa fekk moo ko dalal mu ne ma man moroomu Cheikh Omar la man a ko Cheikhu sama doom la ndax suñu mag a ko jur mu ne ma may li ma seetlu ci Thiès yéen bu ngeen ñëwee daal lépp da ngeen koy joxe ma ne ko may suñu suñu suñu ak suñu maam yi bu ñu la daan yebal nga solu ba ñëw xam nga duñ la yor bi ma ci fekkee man sama baay alxaaj Mouhamad Njëgeen boo soloo ba ñëw dana wax ne fekkee imaam ci gox mooy soo demee ci gox nga fekk fa samp yàlla mu ne nan ko suuxal sëñ Amad Njëgeen moom lañ tuddi hôpital régional bi moo ñu daan wax loolu bu lay yebal nga solu ba ñëw ne ko papa maa ngi dem kat ci jataay ba mu ne ah boo demee gox ba ci gox boo fekkee samp yàlla na ko suuxat mais kooku kooku kooku ak nite la loolu maslaxa la rafetal la day tax nga jàmmoog say nit mais soo ñëwee ak sa njëgeen laa sant ak sa grand mbubb bu rafet ka fay nekk ci quartier bi di liggéey guddeeg bëccëg di jiite nit ñi di sonn nga ñëw rek daal di jël yëpp téye yow bu yàggee gars yi dañ lay bañ de fekk ne yow yaa ko sabab yow yaa sabab noonoo boobu ñu ngi kontaan bu baax di kontaan te itam ci suñu mbokk laayin yi ngeen ànd fii njabootu maam Seydina Limaamu bu fi ñëwee dañ fee bokk sedd Seydina Isa bii nga xam ne mooy doomu sëñ Ablaye Thiaw ci at yi baay bi doog a toog da def ay tournée ci réew mi bu ñëwaan fii man sama soxna bu mag baayam Baye Issa Seck lañ koy wax loxo ndeyjooru sëñ Ablaye Thiaw la woon Baye Issa Seck maay Baye Issa loxo Ablaye Thiaw la woon ba bi muy nelaw naa bu ñëwee toog dañuy dem indi sama doom bi ma tuddee aas mii ne ko kii na jàng alxuraan ndax kii mooy seen cër yéen ci njëgeen njëgeen ji bu lolou wow, waaw ndax way jorom bu jigen bu lolou wesso suñu mam Aminata Fay mo jur serigne eumbeut jigen dañuy wax ne suñu mam alhaji ahmad baru jigen fofu lañ ko maye soxna sos, mu andale ko ties waaw dañu fi tok di wajal gamu gi ben responsable ou euh, Sénélec bu buñ wax ciom ñew mu ne dafa ñew ci digalu directeur bi pour waxtaan ak suñu comité d'organisation bi ci yan matuway la ñuy jël sëriñ bi dal dimay ñaanal nama demal nga and ak gaay ngeen waxtaan bi mu ñëwé ma ne ko coom mu ne ma ma gis nga ñuy tok fi ma ne ko mooy suñu groupement central <laughs> dégg nga dégg mu la sëñ bi yow tak ma édifié yow ah, ah, ah. waaw ma ko ñi gis nga ñi tok ni salle bi fess tép ni ay maga ak borom sikkim ma ne ko ñi ñoo suñu groupement central lépp looy def ci courant bi ci gàmmu gi wax ko ak ñii loolu li ko waral mooy jaxasoo guñ jaxasoo ak yéen waaw su ko defee ñu ngi kontaan ci ñu fi teew ñëpp mbaalo yéen ñëpp ñu ngi kontaan Cheikh suñu doom ji ku la fonk la saa yu ñëwee su tur la may wax yow yàlla seede ne moom mii indiluma benn tuur bu dul bu dul bu dul bu dul bu dul bu mi professeur Cheikh Gueye professeur Cheikh Gueye professeur Cheikh Gueye ma ne ko ah xam ne dinaa gis tey Cheikh Gueye moom mooy kan waaw waaw waaye nag ah <laughs> moom sant yàlla bu baax bi ci des fi ñuy tëjale sëñ Cheikh nit dañ koy fonk ngir mbir ma dikkee mii dañoo dem teewan Serigne Cheikh Tidiane si nelaw ñu ànd ak sëriñ Muniiru mat na ñaari oto ñu ñëw ñun ñoo leen jiitu moom ak xalifa bi bi ñu ñëwee ñun sax may ñu ñu accédé sëriñ Muniiru daal simpi nañ ko yóbbu ko mu toog ci wetu ñoom sëriñ Babacar Sy ak in Pape Malick sëriñ Muniiru dem toog foofu fi ñu toog ci ginnaaw ma gis ne kii dañuy doyee dal kilifaam mu daal di taxaw taxawaay boo xam ne bu yéeme la keroog futti bu bologam jaral ko muy buuxante ba jël xalifa bi di kilifaam jël ko teg ko ci siis doog a solaat bolog bi toog ci wetam moom ma dikk mi ma ne kii daal kii daal moo neex a àndal te yooyu yëpp nit ñi dañ koy seetlu man boobu j'étais à peu près à 70 ou 100 mètres toog di ko xool xamul ne sax sëñ Ousseynou nga teg fee di xool mais ci laa ne mais kii mais kii nit ku baax la ndax situation keroog boobu ni mu soowe yow mu jaral la lenn li sagal sa kilifa ba àdduna yëpp mën ko seede ma ne kii ku lëkkaloog moom moo tax bi ma bi may tourné di nuyoo ba agsi ci moom ma ne ah mbooloo mii de yaakaaru na bu baax yàlla bu yàlla tas suñ yaakaar yàlla nañ gisante waat ci yeneen yoon sëriñ xaadim si la itam ku am taxawaay la suñu kër gi sëñ xaadim sëñ Abdou Aziz xaadim si la ku am taxawaay la imaam as mii la nekkaloon keer moom la njëkk a jaxasool doog ma seete waaye man di traitement spécial laa am ci moom fu ma soxlaa ministre de l' moom laay téléphoné. Hmm? ah mu nga kon kon mbooloo mi yaakaaru na bu baax ne leen ko famille njigéen nee nañ am nañu reconnaissance ci taxaw bi ngay taxaw seen diggante ak ministre de l' intérieur ci baat yépp nag boo xam ne xew-xewu diine la xaadim si la taxawaay bi muy taxaw pour lu ñëw ci kër maam alaaji ak jàpp ci digganteem ak ministre de l'intérieur taxawaay bu mucc ayib ñu ngi leen di ñaanal sant yàlla bu baax Moustapha nag a gën a góor góorlu lii sas la yaa ànd ak ay kilifa andi leen sa kanamu papa yi ñu wax lépp luy njub na nga ci nekk lépp luy liggéey na nga am jom liggéey liggéey doo nga am njariñ jaamu yàlla jeex na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه أما بعد السلام عليكم جتاي بوتد بيغا خمنا جتاي اسلام كبلا دا فا ملني سونو كير تاي صف صف اك الاسلام الحمد لله صف صف اك ليمان صف صف اك احسان fa tabarakallah suñu xuseynu muqaddima bi nga def muqaddima bu ñu gërëm la ndax ku xam rekk moo war a wax ku xam barab walla nga xam téere suñ la joxee yow yaa war a wax soo waxee ñëpp dinañ kontaan ñëpp dinañ jot seen cër fi mu ne bi ngay wax ñëpp jot nañ seen cër radaynaa xismatal jabbaari fii na lanaa ilm lanaa ilmun walil aadaai maalu walil juhama juhalaai maalu loolu la ñu wax kon te yonent bi dafa wax ne rahimallahu imra'an takallama fa ganima à Sakata, fasaliba saliba macha ce wax yiñ fi wax le président euh, Serigne Cheikh dama doon bëgg wax monsieur Cheikh Serigne Cheikh Cheikh Aziz al amin si mu yëkkati kàddu yoo xamee ni kàddu yu matela la kàddu yoo xamee ne dafa jàngale xam nañ ci lu bare baree bari bi mu waxee te loolu rekk la wax di jariñ nag wax daal su dul jariñ noppi ca moo ca gën ya waxtam su dee yàq noppi ca moo gën waaw loo xam ne soo ko waxee mu jaxase àdduna bi yépp ah xuloo am nañ ko denc buñ ko wax buñ ko wax sax ci néeg waxuma laak ëtt waxuma laak pénc waxuma laak réew dañ ko war denc wane wax yii day mën nañ koo génne ci réew mi yépp nit ñi dégg ko su ko ñépp déggee di dinañ ci jariñ ñu ngi tatagal bu baax sa mbooloo mi mbooloo mu tedd mi nga xamee ni mbooloom islaam rekk lañu ak mbooloom euh, ahlu tasawuf waaw waaw ak ahlu chia ak ahlu sunna ak ahlu salaf ñoom ñëpp a ngi fi kon loolu mooy wane ne l'islam bi yëpp yëpp yëpp teew nañu fii waaw loolu nag daf ñuy encourager ñun ñi ngeen seet si puisque ku la seet si da seet moom na mu mel ak la mu wax waane nag ba ngeen ñëwee na ngeen mel ak la ngeen wax yëpp dafa dëppoog li nga xam ne moom moom la koñ bi laaj waaw ndax fii comme ni ko sëñ Xuseen waxe sosewuñ ko lu dul lislaam islaam rekk lañ ko sose te mag ñu baax ña ñoo ko def waaw alxattu yabqa zamanan baada kaatibihi wa saaxibu alxatti taxta al madfunu alfialu yabqa zamanan baada faacilihi wa saaxibu تحت الأرض مدفون ah kon tracé bi nga xam ne mag ñi moom lañ tracé woon ñun daal moom la ñu topp comme ni ko say Seydou Xuseyn waxee tracement boobu nag du ngelaw moo ko mën ah ñii nga xam ne ñoo nekk ginnaaw mag ñi it ñu ngi ci teg seen tànk di ko topp te muy liiñ boo xam ne bu baax la di ko topp ba yow mina haada ba léegi ba ci xalifa bi nga xam ne Hadj Munir yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom it mën nga ca yoon woowu wàcc ko benn yoon te nun ñii tam ca lañu xiir ñun rakkam yi ca lañu xiir mu taxaw waaw te fa mu jaar nag ñun tam incha allahu fa la ñuy jaar ndax fa mu jaar fa la mag ña jaaroon ba jox ko euh, li nga xam ne moom lenge yi xuma waaw ba jox ko ko ah mu yor ko nu it incha allahu dañoo fas yéene loolu du réer ci sunuy loxo te yàlla bu ko yàlla def yàlla bu mu réer ci sunuy loxo. kër yu mag yëpp nag ñu ngi fi ñi ñu ci gën a jege ñi ñu ci gën a jege ah mooy waa ba yi nga xam ne maam Amari Ndaak jóge daawul jóge fii Alhaji Ahmad Baroy daawul jóge fale danaan dañ daan demlante di ñëwante waaw ba ñu taxawal li ñu taxawal waaw mag ñu baax ñëpp ñëw nañu dafa mel ni dañu doon ñëw pour jàppale Alaaji Ahmad Baro waaw maam Cheikh Al Hadj daaw fi jóg su dee dem dakaar jaar fi su jógee Dakar jaar fi su jógee Dakar jëm Tiwaawan jaar fi waaw daanaka ñetti fan fee lañ daan lal malaanam wasifa maam Alaaji Ahmad Baro kàngab yooyu yëpp toog ñu ñu wasi fa ba pare ñu ne maam alxaaji euh, Maalik euh, tëjal ñaan bi mu tëj ko ca baatam bu neex ba waaw ndax ah waaw waaw ca baatam bu neex ba waaw lu tax ma ne baatam bu neex ba puisque suñ papa ñu ko wax mm-hmm. moo ne dégg ngeen seen baay Abdou Aziza si waaw mu ne gis ngeen ni mu neexe baat dabul baayam ci lii bayimako dak ba dàq yo téeméer yoon. allah sama papa ko wax. man sama lu wax rek gëm naa ko. ah nitu yalla la. nitu yalla du wax lu nona waw hmm, hmm. bay Baye Abdoulaye Niass ba mu ñëwé fi la taxaw ci buntu bi di ne ah kër yalla ngi. kër yonent baangi ngi. kër Cheikh Ahmed Tidiane ngi. di duggu dégg naa nekk na fi lu tolloog lu tolloog un mois saa xëyee ñu wékkal ko njoowaan gi ci buntu bëtoo bi foofu wékkal ko njoowaan ga mu toog ca njoowaan ga ah daal ne isalu ma shi'tum isalu ma shi'tum laaj leen lu leen neex ci sharia ci islaam ma tontu leen ne nak xamna ne nak borom xam xam-xam ngi fi jangale ne ba tay yit wane man damay dik pour pour sama war ma bay ko waaw Mam abdoulay ñas radiallahu anhu lol la dan wax suñu wan fi suy dem tam son papa euh, lim euh, saw mam li mu ko lalal yépp daf koy lem yoyu yépp tek ko kër gi daaw ko daaw ko génne di koy yëkkati waaw alxuraan ji daal kaamil bi lañ daan wa kii wàcce mu mu siiw mu ne ma te ngeen def noonu rek ah ma ne ko waa papa lu tax nga bañ ñu def bu mu daal ne ma damay bañ ñu ne da ngeen di diir mbagg waa tey waay billaahi ne ma ndax seen maam alxaaji Malick ku xam gàmm ci moom nga ko xame bien que sunu kër yi doon nañ sunu bàyyi daanañ gàmm waane nag ndànk dañ ko daan defe waane Cheikh alxaaji Malick moo def siyaasa boo xamee ne dafa dem bay gàmm di def burdu damay bañ nag ñu ne da ngeen di da di diir mbagg Eh, eh, eh, waa Tiwaawoon waaw ma ne ko nag diir mbagg boobu wàññiwul dara papa puisque lu baax dañ koy roy lu baax dañ koy roy suñ ko déggee woon wala ñu gis ko keneen ku dul Cheikh Al Hadj tam muy lu baax war nañ koo roy waaw te it dafa am lu xew loo xame ne burd burd udabaa yi dañ ne bur u la bur du burd ndax manto ba nga xamee ni moom la euh, yonent bi tegaloon Kaab ibnu Zuhayru ba mu ko taggee waaw burd boobu moom la euh, imaamul Busiri yu gént mm-hmm. ñu ko koy tegal ma ko kon ñaar yooyu duñu benn bii yonent bi fekk ne ko moo yëkkati buur dem joxe ah euh, saxaaba yëpp di ko mayle ko ñuy jox jox ñuy joxe mbubb ñu joxe lu nekk ñu defal ko Kaab ibnu Zuhayru ndax na mu waxoon yonent bi tagg ba mu ko defoon kii nag imaamul Busayri nag dafa tëdd euh, dafa tëdd génti yonent bi sallallahu alayhi wa mu koy tegal buur burdu boobu فمبلغ العلم فيه أنه بشر دادي جاك يننتي بنكو أنه خير خلق الله كلهم دادي كوي جاك جنت واو من برد بابو نك موي بو ابن بوسير بابو موم لا واتي اون دي ديف كون سونيو ماي نين ني ديف بانات سعاد بي بو كاب ابن زهير بي بانات سعاد بقى <laughs> مطيم إزرى لم يقر مقبول وما صعاد هذا كالبين إزرى علوه إلا أقل قديد الترف مقبول طيب. لعبنا هيفاء مقبلة أجزاء مدبلة لا يستكى حسر منها ولا تور لقد أقوم مقاما لو أقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل ما شاء الله بارك الله فيك جرجف كوكو موي كعب ابن زهير لا ميام بوبو لا ميبي واو فمبلغ العلم فيه انه بشر بيك بفوفه su ko defee euh, ma wax loolu góor gi ne ko may ñu boog ñu def booba ndax ñu xaw kii tuuti euh, man koo def te du ñu teg mbagg waatiwaawoon mu ne ah yow kay li nga wax rek doy na su ngeen demee ñaar yëpp na ngeen ko def waaw ci la ñu nag ñuy def bu du fii waaw booba sa papa joxeegul sax ndigal pour ñu def ko puisque defe naa Catherine euh, euh, loolu li ma lay wax 94 la woon mm-hmm. te sa sa papa mu ngi joxe ndigal 98 mm-hmm. kon def nañ ko 4 ans sa papa di joxe soog euh, joxe ndigal ma dikk ci góor gi ne ko ah mu ngoog far far nañ ñoom joxe ndigal ne fu waay nekk rek na def buur dëpp waaw ba noonu la ñuy def ba léegi waaw kon nag ñu ngi kontaan bu baax di euh, commencer sunu ngërëm ci kii nga xam ne euh, madame faatu saw Sarr mi nga xamee ne boroom xam-xam la wone ne daal fu góor taxaw rek jigéen mën na faa taxaw moo xam ci lislaam bi moo xam ci xam-xam la moo xam leneen waaw moom ñu ngi koy seppi di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax te di ñaan yàlla tam ay jigéen yu mel ni moom ñëw bokk si bu baax a baax a baax ci ci ci booloo mi yàlla na ko yàlla def waaw professeur Cheikh Gueye moom it ñu ngi koy tatagal di ko di ko ndokkeel bu baax a baax bu baax ñu ngi leen ndokkeel euh, professeur Cheikh ak ak sa mbokk professeur boobu euh, ñu ngi leen di waaw ñu ngi leen di euh, tatagal bu baax di leen gërëm sunu mbokk mi nag moom dafa moom bokkoon bokkoon na ci euh, kii yi daal imam yeeg yooyu daal wax daal dañ koy gëj a gis lool Nasir sëñ Ahmad mii daf cee bokkoon te ku ci amoon solo la nag ku ci amoon yitte la waaw wane na wane na gëj gëj na waaw yow yow ba nga fa gëjee la la affaire bi wéet lool lool da ngaa war a ñëwaat yal na yàlla dolli sutura yi dal Aziz Mbacke ñu ngi lay tatagal bu baax a baax di la nuyu di la delloo euh, anzilu manazilahum euh, anzilu sa manazilahum loolu yonent bi wax waaw ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la xamal ne sa mbokki Mbacke Mbacke yooyu nekkoon nañu ca keer waa ne kenn gënu leen waaw am na ku ñuy wax Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud ñun ñoo bokkoon sax benn amphithéâtre ñoo ko bokkoon usulu diin ñoo fa nekkoon moom mu nekk xismul xismul xismu tafsir de mustala al hadis moom moom la fa la génne waaw man daawa wal inchaad la génne waaw waaw su ko defee tabaarakallaahu alazim bari na ñoo xamee ne ñun nekkoon nañ foofa ci keer tabaarakallaahu xaadim si la mii muy waxit ñoo nekkoon ci keer tabaarakallaahu te lépp nag baax bay bëgg a dee waaw sëñ jal mële jàllaay mële ñoo ñoo nekkoon tam ak baytiir seen laay waaw ñoo nekkoon ak muxtaar laay mi nga xam ne mooy imam ba léegi ñu ñoo nekkoon ñoo nekkoon foofu ci keer waane tabaarakallaahu lépp doxalin bu rafet rek leen bu rafet waaw kunta yi itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen woon ne ñoom ñii suñuy mbokk lañu kunta kunte yii suñuy mbokk lañu te ñoom it am na ñoo xamee ñoo nekk ndowoon keer ñoom Cheikh Kunta ah. ñoom Hamdi Kunta ñooñu ñëpp ñoo nekk doon foofu tabarakallahu jël nañ suñu doom suñu suñu suñu rak may ko buuna waaw cheikh bu buuna buuna kunta lañ ko moom lañ ko may ba mu am ci ñetti waaw bu Dakar waaw su ko defee euh, xam naa ne waxtu wi daal tabarakallahu du ci xaaj dafa kii waaw euh, cheikh nag ñu ngi lay gërëm bu baax di la encouragé bu baax ay nawle ñoo dajaloo yëpp soo ko mënul kenn du ko teg sa loxo waaw man mi damay toog ba mu yàgg ma ne ah waaw ndax man mat naa ma mat naa imaamu imaamu kër maam alaaji sax waxuma la bu bu Thiès ba ñu def ma président <laughs> des imams et ulama yenn saa yi dama waaw moom ndax mat naa sax bu bu kër maam alaaji waaw loolu dama koy wax waane yow it wax nga wax nga lu demee noonu léegi waane soo ko mënul woon kenn du la ko def soo ko mënul woon kenn du la ko def kon ñu ngi kontaan bu baax fa tabaarakallaahu di leen nuyu di leen tatagal di leen ñaanal seen mbooloo mi yàlla yokk ko ni ko xaaj du uh, uh, uh, waxee rek fa tabaarakallaahu Moustapha bi moom ci mooy seen buntu fii ci ñun waane dinañ leen seetal ñeneen ñoo xamee ne tam incha allahu dinañ euh, furli Moustapha mi waaw ah, dinañ ko gën ñoom dinañ ko furli incha allah waaw yal na yàlla dolli sutura yi bi jaahi rasulillah sallallahu waaw waaw waaw waxoon nga ko de. ci kaw. waaw kon xanaa si ndigalu sëñ bi rek ñuy fàttali jullit yi nii incha le 21 décembre à la chambre de commerce de Thiès si la ñu fas yéenee def cérémonie de dédicace boobu nga xam ne ouvrage bi mooy Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène un parcours atypique d'un homme d'un missionnaire de la religion musulmane donc ñu siy woo ñëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.